Cheikh Ahmed Tidiane Sy Mansour mii xalifaam xadara ahmadiya almaktum Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sy ak njabootam Serigne Mansour may xalifaam toftal ci xadara aziziya سرين عبد العزيز الأمين سرين بابا كرسي الأمين مي خليفة حضرة أحمدية سيدي أحمد سي سرين عبد العزيز مي خليفة معنا حضرة سيد الحاج مالك يبرك نجابوتو سرين حبيب نيوم نيب la ñu boole seen kàddu di ko wax ci yéeney sëriñ Papa Malick ngantam ku nekk mën na koo nangu ndax nag dañu di ay ndaw niru ko waaye bokk ca mag ña jataay bii moom la ko sëriñ Abdul Aziz Al Amin sedde woon mu nangu ko daaw moo fi teewoon ren yàlla dogal moo jàpp lii jox nu ci ndigal bi mu jubsee al azimatu lil abdi wal qadaau lillahi yàlla dogal li mu dogal ci mom mu am ngant wote ni ni nañ ko wutu xamna ëpp nanu sax waye kula tungom ya koy sut nu wax len marhaban bikum fi baytikum bayna ikhwatikum jël nak sunu ziyara jaarale ko ci jëmm ju tedd ji di Chérif Tourate kenn la sëtu yenent bi la ko yàlla baaxal la soppey ñépp la wëllërey ñépp la yàlla na ko leeru maamam gunge fu mu jublu yàlla na fa yiwu yàlla jublu ku ko xam xam nga ko ci cofeelam ci wakam ca ngor ca yoof léppi diine su ko mënee fekke ko dana ko teewe ca na mu gën a rafete ñu nuy itam njabootu ëttu diine yi fi teew waa kër maam limaamu tabaarakallaahu mbokk lañu xadra bi duñ fi dañoo nangoo ci sunuy kilifa ñu wax ba tàyyi lu dox seeni diggante ci mbokk ci wëllëre ci cofeel ak jëflante yu rafet njabootu sëriñ tuuba gi ñu ngi ñëw teew wax naa leen léegi fii ngeen ñëw bu ngeen jàppee ni gan ngeen fi dangeen a xamul li ngeen fi doon sëriñ tuuba sayidil xaaji malik laata diine laata tariqa mbokk jiitu te mbokk alalu yàlla la la leen boole tey bu ñu ni woon Tiwaawan gi ku fi sëtu Seydi El Hadji Malick mbaa sëtu alaaj mbaa sëtu Serigne Touba doo fi fanaan mana ak ñoom duñu fi fanaan kon seen kër ngeen ñëw ñu dalal leen bépp jàmm massawu leen coono jaajëfal leen daan naa dégg ci sëriñ Abdoul Aziz anhu mu daan wax ni benn mburu ñaari mburoo ko dàq te mooy bokk ci njabootu maam limaamu walla njabootu Serigne tuuba ñu ni ñu ngay dem Tiwaawan nga ni ah Tiwaawan kat ku baax la yàlla dogal ñuy fekki lamu am ca yàlla ku ne di ca nar ngaral nga ni ma duma ko wuute naa ñëw ne kooku ñaari mburu la ndax bu la Serigne Touba séddee boo fa jógee ñëw ci Seydil Hadji Malick mu sedd la mbaam maam limaamu mu sedd la nga ñëw Seydil Hadji Malick sedd la ne ñaari mburu ngay am mu ni benn mburu kon ñaari mburoo ko dàq maam Ousmane Samb mu woor leen ni tey penc mii ngeen ñëw seeni borom bég nañu mbégte moomu nag la ñuy feeñal ci yéene ki nu wuutu muy Serigne Pape Malick ak magam ji Serigne Babacar Sy Mansour ñu nuyu monsieur le maire Samba Bathily Diallo di ko dalal di ko wanni ni fii mu ñëw pencam la li ma waxoon léegi mooy dellu si ci moom waaye tey moo njaboote te ku njaboote wax dëgg yàlla dootoo noppalu ndax aajoy njaboot nuyu nag sunu mbokk sunu soppe jaraaf Momar Gueye ñu gën koo xam ci Muller ne mën nañoo wax ni bu ñu waxee li ñuy wax ci moom mën naa tarxiis dal ci képp koo xamante ni yaa ngi dëkk Yoff mbaa nga dëkk Wakaam mbaa nga dëkk Ngor wala tout bonnement yaa ngi dëkk Dakar ci li gën a yaatu ñu nuyu ko ziyaar ko jaajëfal ko itam li ñu seede ci moom ak alxaaji Yuusu Jóob bari na ku yàlla dénk te doo am laabiir ga yàlla dénk la ko nga am laabir ga foofa la affaire ba nekk président maam Ousmane nee na kon kon dëgg la tabaarakallaahu yàlla na leen yàlla sampal teraanga sëriñ Pam Malick wax lu mu gàtt-gàtt ku mel ni ki moom ak ni ko ñetti dëkk yépp amee ñi di ay ndimbalaa kon lu lu mu gàtt-gàtt nañ leen feeñalal cantam ndax seen taxawaay bu dul dog ci xadara bi ci xew-xew yépp yàlla na leen yàlla sampal samp bu dootul sempeeku ci la ñuy doxe nuyu ziyaara al aima wa ruasa dawair mboolem ilimaan yi tudd ci rek imaam Babacar Diagne tabaarakallaahu ca Wakaam imaam Moustapha Samb ca Yoff ca Yoff ak mboolem ñi ñu fi tudd ci ay aimma te taxawaay yi di benn yàlla na leen yàlla fay ngeen yàgg a jiitu nu yàgg a topp ci seen gannaaw te yàlla leeral seeni dënn te yokk seeni xam-xam te sàmm seeni cër ñoom ñépp ñu ngi leen di nuyu tey siyaara di nuyu saltige yi di nuyu jaraaf yi di nuyu frais yi mboolem communauté lébu nga xamante ni boroom kër gi moo déclaré woon ca la njëkk ni collectivité lébu ak këram mook soow cere boole naan mbaa boole tuur tabaarakallahu ëpp naa tuur ne jaajëfal leen ñoom ñépp jaraaf omar meg fa tabaarakallahu saltige yoof yépp saltige wakaam yépp ak mbokki fere ñoom ñépp ñu ngi leen di feeñalal xormay penc mi te di leen jaajëfal ci seen taxawaay jëmale ko ci njaboot gi nuy itam bokk yu baax yi nga xamante ni ñoo àndandoo xalaat bés bi ba mu yaatu nekk coordination ci ñetti dëkk yi mu di tànk ngor Yoff Wakam yal na yàlla gën a saxal ànd bi te gën koo sàmm ndax kat ziar bi am na ku ko wax léegi dafa itteel kilifa yi barki démb ci Wakam wax naa ni Wakam wanagu Seydil Hadji Malick la Ngor wanagu Seydil Hadji Malick la yoof yoof wanagu Seydil Hadji malik la këram mu nga wakam waaye ku ne xam na ni ittewoo gi mu ittewoo woon jaxasoo ak mboolem lébu moo indi dalam bu njëkk mu ñëw dalandoog ñoom ñu dalal ko yaatalal ko jàppale ko boole kook seeni njaboot mu jaxasoog ñoom tey la mu doon xemmem keroog bi mu xoolee ndakaaru te gis ni liggéeyam noppeegu fi sëriñ Babacar Sy radiyallahu anhu mu sakku ci moom mu wuti fu mu dem toog fa ndakaaru la ko wax mu ni ko ndakaaru sama liggéey noppeegu fa ndax ndax leer gu mu seen mu sori lool Dakar te mu bëgg mu jegeñ ndakaaru ba jaxasoog njaboot gi moo tax mu dëkkloo sëñ Babacar Si Tëngéej mu dëkk fa moom dox nag di mottali liggéeyam defe naa looloo tax sëriñ Abdul Aziz bi ko ñoom El Hadj mi sàkko ca siyaar bu njëkk ba mu ni nangu naa danaa ci tàbbal samay ñaan ndax dafa bokkoon lu ma yàgg a ci mag ñi nañu fente woon bés bi njaboot gi delloo siwaat ko mu ni kon nag dimbali nañ ko ba li mu am na fa tabaarakallaahu kon ñaan gu nangu na ko yàlla gën a saxal mu dal nag képp kuy ñëw ñu beral jigéen ñi nuyoo ziyaara cant waaye itam boole ci suñu mbokki andi handicapé yi nga xamante ni at mu jot nii ñu ko defe lañu koy defe ànd ci bokk ci duñ ca yam participer ci yàlla na leen yàlla fay te saxalal leen teraanga ak sutura sàmm seen lépp zahiran wa batinan nu am mbégte nag jotal leen kàddu sëriñ bi ndax nag kilifa dafay gudd ba njaboot du ko mën a jot soo amee sa kilifa wóolu la mbir mu mel nii mu sàkku ci kóoluteem féete ci yow wax dëgg yàlla rëy na waaye itam symbolise na sëriñ Abdul Aziz taxawaay bi mu amoon ci yéen bu ngeen jàppaan bés bi ak taxawaay bi mu ci daan def mu nekk nag lu am am solo pour wane ni rek boroom kër gi yàlla dafa dogal ci moom mu jiib rek xemmeem liggéeyal yàlla liggéey booba nag mu di ko jaare ci lépp loo xamante ni mën na koo jural ngërëmal yàlla mu di ko ca sàkku moo tax fii fii bokk ci école yonent bi sallallahu alayhi ndax moo sosoon école bu njëkk ñu tudd ko madrasa tarbawiya

mu am ittey ëpp malaaka looloo tax Seydi Cheikh Ahmed Tidiane wax ni yàlla am na ci nit ñi mbindeef yoo xamante ni seen fierté nekkul rek doon ay nit waaye fexe ba malaika nekk seeni collègue فكأنهم في الذكر والأدب الذي في ذكر من ملأ سمر روحاني فإليك نما حمدين ناداني ناداني يا منتهى كيكون جوهر إنساني فكأنهم في الذكر والأدب الذي في ذكر من ملأ السماء الروحاني waaye ana soppe Cheikh na Tidiane fa ilayka yabna Muhammadin naadaani shiyabun tuhaqiqu jawharal insaani farakibtu nahwa qadaara kulli ajibatin min hikmatin wa malihatil awsaani والشوق فيك وهمتي في رغبتي بمجاهل الآيات قد قاداني ما منطق إلا ودون تعقل ما عبرة إلا ودون بيان فتزودت نفسي بكل بديعة نفسي وبديعي تبقى على الأزمان فكأنهم في الذكر والأدب الذي في ذكر من ملأ السمر روحاني وكأنهم وقت النشاط لأهلهم ولقومهم بوظيفة السلطان فكأنهم في الذكر وال الأدب الذي في ذكر من ملأ السمر روحاني ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bokkoon keroog bi mu ñëwee madinatul munawwara bokk na ci pastéefam ñi ko yàlla booleel na muy def ba tàggat seen itte itte ba kawe ba bu ñu doxee malaayika dox ñoom ñu dox muy njaboot yi ko yàlla booleel mu fexe ba ñu di leen jaawale di leen jaawale ci melo di leen jaawale ci itte di leen jaawale ci Pastef di leen jaawale ci doxalin ya ñuy doxal mu méngoo ak na ko yàlla bëgge moo indi mu ubbi école tudde ko madrasa an nabawiya ñu gën koo tënk ci baatu sufiyanke at tasawuful islaami foofa la doole doore ca madina

loolu moo tax waxa waxu anas boobu mu wax anas ibnu malik daf ni ma nafadna ay diina min aturabi wa inna la fi dafani fi dafanihi hatta ankarna qulubana ne keroog ne bi ñu dencee yonent bi la ñu yëg ni am na viduité ndax ci saasi ay manquement tàmbali na di am ci kuréelu njaboot yi ci kibaaru saxaaba ba ci sigaaru saxaaba ne manquement yooyu li ko indi mooy ñu ngi doog a yëg ni ñàkk nañ kenn koo xamante ni présence am ci sunu biir dafa mës a nekk baat buy àddu di fàttali lu ñu fàtte woon walla baat buy àddu di melal melokaan ci yoon ak njub walla bokk nekk jëmm juy dox joo xamante ni soo ko gisee muy dox da nga mën a nangu dox ba muy dox jëm ci wàllu yiw moo tax sayyidatuna Aïcha wax ni yonent bi sallallahu alayhi bi ñu ko laajee ni ko lan moo nekkoon meloom daf ni kaana xuluquhu alquran jikkoom alquran la meloom alquran la mu ni wa kaana quranan mutaxarrikan alquran juy yëngu di dox di déplacé wu waaye melal melokaan ya ba foo ko gisee rek sa xel delluwaat ci yàlla tënk-tënk boobu la tënke woon njabootam ca Madina ba ñu xëy yàlla dogal li mu dogal ci moom bi ñu ko jébbalee boroomam am na ñu foog ni xaat ca lay yem lislaam bi foofa lay yem te fekk na moom li muy def pour ba faw la pour ba faw googu moo nu ci jotale te foog naa ni du tey lay yem du ëllëg ci lay yem incha allah fii ba bufta di wal liggéey boobu danay melal ci péncam ba keroog ngi fekki yàlla boobu liggéey nag moom la Seydil Xaaji Malik wax ni danaa ci fexe man it bay samaw laaj moo tax mu indi cëslaayu péncam tënku ko ci xam-xam ak daara فدم فسن دلت واي كسب سيد الحاج مالي دفرني نمقلك هدام فسن دلت عن الرشد فاغتدت فصامت وقال jiidi waaye ku sopp maam Serigne Moustapha fasaarat sawaaya fi quraha jamiiha mila am bi fuujin raakina wa sujjadi fajar timis jàkka yi diir fajar timis jàkka yi diir حضرة الجمعة الله واو سنغال لخمام اس كبير بير لكم ايقال صلاة الفاتحين وصف لما صفككم مصرك لازف كمسلمين جلال سيف لرمام اس دورة ناصر الحق دوت الفاي حق بالحق دوت الفاي talatil xaqi doy na lay dëgg du réer lii li aswaatim fi kulli yawmin wa laylatin dawiyun lada kulli zawaya masjidi samam bàyyi fële ñëw ko jaasi jël ñëw ko xalima bind orienté nit ñi ba dem فك مسامح سيد الحاج مالين مم فجاهد فيها بالسياسة والندى وحلمين وحلمين فاهتدى كل متدي ومن لي وانغور شوف وكم دفلن سين ماما دره كمان اللي ومن اللي ومن اللي بإخراج الحقائق ناصحا ومن اللي بتدرس الكتاب ومسندة ومن اللي ببدل الفقه والنحو منطقي بيان معانيها بديل بمسيدة ومن اللي بورشه بل جنيدي والأشعر ومن لي بآداب ودرب المعدد ومن لي بنجم في النجم وموسل سيد الحاج مالك يا مصل أصول ngor yof wakam def len يا mamadou ya masal arodan sidil haji malik ya masal سيرة البدر مقودة ومن لي ني ني أستاذ بوبنا أستاذ بوبنا di Seydil Hadj Malick cëslaayu péncam mu samp ko ci daara ngir bëgg roy yonent ci yoonu liggéeyam fexeba comme am ku nga xam li dox sa ak sa borom tax Cheikh Abdul Aziz bokkon na ci ay digleem yu mujj muy wo njabootu ndaw ñi pour ñu ñew kenn sa contribution ci biir mooy fexe ba samp daara mu melal ci ñépp ci fépp daaraam jooju wër na Sénégal nangoon naa ci moom mu ni Maodo min as-sabaaxi ila al-masaa'i liggéeyam jàngale la woon bu xëyee suba ba jóge ci jàkka ji trois heures du matin mba trois heures et demi lay jóg di waajal waxtu fajar gi naafilaam ñaari rakka la woon rakka bu ne bii mu def ko ci xaaju kaw bii xaaju suuf moom lay jàng rakka bu ne su ko naafila tombeek fajar gi di dugg mu dem ci jàkkam jàkka ja mooy noddal boppam lu dul xanaa bis bi ay mbokki taalibe seen xërte yegg ci nettali ko baatam bi mu noddee ci fajar dégg gu ñu ko dégg ca kel te booba mu nga njaarnde nee ñu ci fajar gi bi muy nodd ñu ngi ko dégg baat bi jaxasoo ak ngelaw li ba yegg si kel mel ni ku tollu Tiwaawan nodd waa Cees dégg ko ne Seydil Hadji Malick ne delloo si nag mbubbu jàllaabeem nii ca kaw ne ah wolof dey xam naa ko bañul ñu soppi la def la yàlla di la jaamu ca la ko bàyyee ne keroog la bàyyi nodd ga waaye liggéeyu daaraam mu di ko wéyal bu dee ci tool yi la bu toogee gisu la mooy ñëwal boppam fekk la ci waar wi gannaaw ba mu la laajtee ba ñu ni yaa ca waar wa mu fekk la fa ni la ma wax la li yàlla wax man dem tàggoog yow ndax ñëwoo ci jàkka ji boo ñëwul ci jàkka boo ñëwul ci jàkka ji mu laajte mu laajte ana diw lu tax ñëwul ndax moo daan àndandoog ñoom ndax mu ngi ci proximité taalibe yi di leen déglu ñuy wax wala di leen contrôler ci seeni jëf mu ni ndax boo leen soree yenn saay mën nañoo tukkal àdduna te doo ko yëg boo nekkee ci seen wet di nga leen contrôler man leen a corriger boobu liggéey ci yonent bi sallallahu alayhi sallam la ko jëlee ndax noonu la nekkoon ak ay saxaabaam fexe rek ruux ñu tàggat ko ba dootul rëcc ndax bu rëccee def lu ko yàlla tere boobu liggéey nag mu suuxate ko daara ak xam-xam melo yu rafet melo yu rafet soo ko jëlee natt ko ci jamono bii ñu nekk da nga mën a wax ni maam Seydil Hadj Malick jamono bi mu tombeel sunu jamono bii la waroon a doon nga xamante nit ñi seeni melo toogatul benn place taalibe yi ak taalibe dafa tumuraanke ndax tënk-tënk bi la doon tënk liyee la ak sa kilifa léegi ñépp foog nañ ni kenn waratul am kilifa te fekk na tey la ñu war a gën a am kilifa boobu liggéey nag moom la nekkoon di ko doxal ci dëkk bi séq ko nag ak mag ñu baax ñi ko yàlla booleel ndax fexe woon na ba mag ñooña dañoo jóge woon seeni barab yàlla itteel leen ñuy wut ku leen wan yoon wa faf ñëw Maodo doy leen ñu jaayante ak moom

bi mu liggéey ci ëttu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam penc moomu nag kilifa gi nu fi wuutu wax na ni du soppiku mukk ndax ñoom ñu ngi teg seen tànk ci ndëggu samp liggéey boobu ànd ko ku leen yàlla booleel ci njaboot gi mu ni kon nag mu ngi dalal seen xel moom Serigne Pape Malick ci taxawaay boobu ku ci du ci jóg te ci lay woo képp ku ci bokk ñu àndandoo kook moom ci njiitu magam xalifa bi Seydi Aboubacar Sy Mansour gën cee tënk nag njabootu ndaw ñi ndax ndaw yi ñoo sabab delloo si bi waaye itam mission bi tegu ci seen mbagg ñoom xale yi mooy yaakaaru mag ndaw lu farlu moo koy samp moo tax ñoom élage ñu woo leen rek ci ñu gën a xam seen masuliyaat jëm ci biir liggéey bi ëllëg يالا وخناني لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن حياته فيما أفناها عن شبابه فيما أبلاه عن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به ëllëg yàlla ne ndaw du séqi tànk yowmal qiyaama te duñu ko laaj ñeenti yi ba ca njëkk seen dund ci lan lañ ko paase ba ca topp seen ndaw jeunesse biñ ca tolloo ci lañ lañ ko paase bi ñuy wut alal ba am ko bañ ko amee lan lañ ca def lu jaar yoon ak lu jaarul yoon ëllëg daañu leen comptabiliser ñoom jeunes yi ci xam-xam ba bañ ko jàngee ba yeggal ndax jëfe nañ ko pour wax la ni ku ca toll ñu natt sa responsabilité sa masuliya boo ko taxawalee nag ca yoon wa yaa nga ëllëg bokk nga ca yaakaar ya soo ko deful ah wàcc nga sa yoon yàlla nanu ci yàlla musal loolu moo tax nag ñoom ñu woo leen woote yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëm ci ñoom woo leen dëgëral woote Seydil Hadji Malick jëm ci ñoom woo leen dëgëral woote Seydou Aboubacar jëm ci ñoom ñu xam ni xadara ñoom cëslaay lañ ci kilifa yi yaakaar lool seen taxawaay yaakaar lool seen itte yaakaar lool seen pastéef yaakaar lool seen nangu gu ñu nangu responsabilité xam seen warteef ba kenn du leen ko jàngal yàlla na leen yàlla jàppale dëgëral leen ndax kat yéen a ngi ci yoo xamante mag ña dañ leen a xamoon ci màndargay mbaax gu ne ziar bi bi nu gënee doon ndaw dañuy wuutu di ko seetaan si di daw jàng ca daara ja parce que tey la ñu wax ni ngor yof wakam ñooy def seen ziara boobu booba bariwul ñu ñu xam sax ci nii mu mel ni noonu la daan mel ci mbeddi Tiwaawan yi boo jëlee avenue jàkka ji ak buntu rawdu sëñ Babacar ak rawdu Seydil Hadji Malick ak kuli gii parce que kaar yi fa lañ daan daje booba penc mi melul nii waaye di nga yëg ni pénc mi am na ay gan tey ñu sol yu weex tal ormal ko fu ñu romb ci dëkk yi ñu ngi leen di seetaan nit ñi di nimse bokk ak ñoom seen ziyaara ndax xamoon nañ ni du leen jural lu dul ngëneel ak yiw Lolo nak moo dellu siwaat moo dellu siwaat bi ngeen di ñëw ba tolloog Thiès bi ngeen di ñew ba tollok Thiès booba maa ci tali rafet na rafet go xamanteni rafet na rafet goo xamante ku nekk ngi laaj way ñi ñan lañu fuñu ñu ndax dan na am di melni nii waaye nu ren lii jéggi na dayo way yàlla na ko yàlla gën a rafetal mu nekk ziyaara bu mu nangu ku fi ñëw ku ne loo fi njortoo yàlla lu kawe sa njort yàlla na la ko fi yàlla defal njabootu ndaw gi yàlla téye ci seen loxo te tasale leen dajub teraanga bu leen mën a may lu waroon mag ñi ñu jël ko def ko nanga xamante ni dana raw na ko mag ñi daan defe ñetti pénc yi yàlla sàmm leen sàmm njabootu penc yi sàmm kilifay penc yi ñiy jëm di wuti ci géej gi mbaa ci jéeri yàlla sàmm leen te tasale leen ak la ñuy yóotu yàlla na ko yàlla def ku fi indiwaale naal ba mu mën a doon yàlla na la yàlla mottalil sa naal ne leen amin nawet bii nuy séenu yàlla na ko yàlla indi mu ñëw ak ndoxu jàmm ndoxu barke yàlla defal nu li ñu ci sumb yépp mu mottalil nu ko soxna yu tedd yi nu ñaanal leen gannaaw jaajëfal leen daan na wax ni ziyaara bu neexee jigéen ñaa ca jàpp de te boo seetloo saal bi jigéen ñi mat nañu double ci góor ñi moo lay wan ni jigéen ñi waaye ñoo ko rafetal yéen a ko yor yàlla na leen yàlla fay ah ne ñoo mottali rangu góor ñi bu ngeen paree nag ñu doog a sédd góor ñi lu mënul ñàkk ñi amul jëkkër am jëkkër ñi am jëkkër yàlla na leen yàlla gën a boole ak seen jëkkër ànd ak teraanga ak wér ak sutura ñi ko ci amul bu ñu fi jógee yàlla ñu dégg alxayri waay amin amin ji bari de ne góor ñi nag xanaa rekk ñu yërëm leen sedd leen ci tuuti te mooy ñaanal leen ñi ci bëgg ay soxna yàlla nañu nañu tase ñu teey ci ñoom te mu ànd ak wér ak sutura mébét yépp yàlla na ko yàlla mott ñi bëgg a tukki tabaarakallahu kenn ku ne li ngay xëñtu la kawe sa njort yàlla na la ko yàlla woon fa tabaarakallahu ñu ngi sant ñëpp kilifa yi ñu fi tudd sànq ak ya des te am ngant ñoom ñëpp yëg nañu seen taxawaay ak seen ànd ci siyaar bi nii rekk la هكذا هكذا هكذا وإلا فلا لا nii rekk la bu dul nii du nii ne kon ni nii yàlla na ko yàlla wéyal delluwaat ak jàmm ànd ak jàmm ci yoon wi yegg fekk fa jàmm yàlla may nu ko nu séq liggéey bi ba keroog ñuy fekki al amin yàlla na yéex te yàlla rafetal ko ñu ngi sant ñëpp xanaa guddee gi rek la ñuy wax te sax guddiwul waaye itam ñu sedd ci xel ngir delluwaat yi ak nag leer leeru yoon kenn ku ne yegg ci jàmm dut kenn mi mu ngi am programme ca ndar te amaana mën naa ko faa fekki bu dul loola maa ngi jëmaat beneen programme ci soowu te amaana bu ma yeggee jóge delluwaat foofu moo tax ñu di ko gàttal waaye lu mënul ñàkk daal ñu wax leen ni sëriñ bi bëgg na xam na ni bu ñëwul teewit ku ne xam na yéeneem ci xadara bi moo wuutu mag ñi ku des yaay dese moo tax moo dese lépp lu nekkoon ci loxo Serigne Cheikh loxo Serigne Mansour loxo sëriñ Abdul Aziz loxo Seydil Jamil moo ko dese yàlla na ko yàlla dëgëral te dolli ko wér te sàmm ko mottalil ko ay yéeneem gannaaw yéeney magam yi mu wuutu te yàlla may ko ndam ci li muy def nu ànd moom ci biir ndam li yàlla dolli wéram xam nañ ci moom ni bu nu ko gisee ak bu nu ko gisul itteem toujours mu ngi ci xadra bi noonu nag dañ koo teel a yëgal ni ko sa njaboot lanu xam na ni sunu biir li ko fees dell du dara ludul servir xadram bi

doxal ko jëfal ko lii nag bu ko njaboot nanguwul bu nee am na kilifa kilifa ga lànk na yàlla bu nu yàlla xiir ci def weneen safaan wudul wii yàlla nanu yàlla tënk ci jëmmam ci ndigalam yàlla bu ñu ko moy lii daal lu mënul ñàkk la ñu di ko confirmer ndax nag loola ñor danga koy wax ak a waxee di ko doxee boo ko deful danañ xam ni dara ñoru la ca lii nag ñor nanu ndax sunu baay daf nu koo joxoñ te xeebuñu dara ci moom yàlla nanu ko yàlla sàmmal mook magam ji Seydi Aboubacar Sy Mansour ak Serigne Maodo Sy ak mbooleem seeni rak nu duggaale ci seen biir kaaraange wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu macha allah ah day jël wird waaw waa ñiy examen ñépp jël day jël wird tàllalal mu jox la ko may leen ko waaw ah, jox ko waay bàyyi Baay Faali Wakaam yi ne ñu ngi leen di gërëm Baay Faali Wakaam yi ñu ngi leen di gërëm sëñ Pape malik nee na je compte beaucoup d'amis parmi les Baay Faal waa Baay Faali Wakaam yi dañoo ñëw sëriñ bi ne mu ngi leen di gërëm di leen nuyu ne ñu ngi leen di sant di leen jaajëfal rawatina njabootu sëriñ Touba ak njabootu maam Limaamu Laay

jox ko sa loxo ndeyjoor jox ko sa loxo ndeyjoor charte yi nag liñ ko ci wax rek lu mënul ñak soo ko jàppee dootoo ko bàyyi boo ko jàppee doo ko booleeg beneen tariqa boo ko jàppee nga fonk sa warteefu diine julli koor azaka aj màkka soo ko mënee gannaaw ba nga wéralee nag sa pas-pas ci yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juróom yi li la sa sharia digal rek nga di ko def ci biir julli nag boroom bi boroom da cee insister wax na ni taalibe du ko néewal di ko def ak làpp tey faral di takkoo laab di ko def ci mbooloo soo mënee dem ca jàkka ja walla fu mboolee di julle di soññ sa bopp ci teel a jóg waxtu fajar nga di ko jooxe ne boo jàppee tariqa bi bokk na ci charte yi nga fonk yeneen ponk yi daa iman nga di ko def te méngale ko ak ni la ko sharia digale nga fonk sa ñaari wayjur ormal leen sutural leen bàyyi leen xel te dimbali leen bu ñu demee ba tële ca ba ñuy dund bu yàlla dogalee ñu jiitu ji nga di leen ñaanal di ziyaar seen tëraay dese seeni dénkaane ak seeni kóllëre mu ni itam ormalaale way juri jaambur yi ne boo jàppee tariqa bi nga fonk sa bu dee dala fekk ci néegu sëy ci jigéen ngeen fonk seen sëriñ yéen jigéen ñi yow itam boo ko jàppee bokk na ci charte yi doo jëfandikoo poon ak lu xeetoog moom doo ko tox doo ko jënd doo ko jaay doo ko jëndale pour rek nga sori ko la boo ko jàppee sa ziyaaratul istimdaadiya nga réservé ko ak waa tariqa bi ziyaaru tëbbu Nyom nga sañ a nyom, ci ñoom waaye sa orma ci ab sëriñ nga di ko bàyyi xel sëriñ boo gis nga wormaal ko bàyyi ko xel jox ko wormaam te nangu cër bi ko defal ne boo ko jàppee wi daf lay war suba ak ngon nga ko def werdu suba werdu ngoon gannaaw takusan, wasifa suba wasifa timis gannaaw timis nga di ko joxe di jàng lim yiñ la jox ci listixfaar téeméer ci werdi wi bu wi astaghfirullah alazim alladi laa ilaha illa huwa alxayu alqayum nga di ko def fanweeri yoon juróom fukk salaatil fatih bu dee ca wa téeméeri yoon laa ilaha illallah nga di ko def téeméeri ci werdu wasifa wi fukk ak ñaar ci jawharatul kamal ak ca wasifa wa la ca des ixtiyaariye du warteef tànneef la soo ko bëggee jàng dolli ko ci jaamu yàlla muqaddam bu la jegeñ demal nga ñaan ko ca ndigal mu defar mu jox la ko muy la nga gis ci ay ñaan ne ci ahzabul awraat ci alquran wala bépp kayfiya bu mag def ne boo jàppee tariqa bi bokk na ci charte yi sa orma ci sëy sëriñ nga di ko melal fonk coow warlu ci seen ndigal taxaw taxawaay bi war loo dégg ci ñoom na la ñor looy def te mën ko waxtaanee ñoom nga di ko waxtaane sunu xalifa ak i rakkam ñoo nu boole tënk ñooy sunuy sëriñ la ca des suñu warteef en tant que ay mbokki taalibe jàppal ñépp jullit bu la yàlla booleel jàppal séqal ak moom lu ngeen war a séq waaye rawatina ñi nga bokkal buumu kurus ak xadratul jumaati bi itam ne ne nga di ko bàyyi xel léegi kon nag ngir tàll ndax dégg ngeen sëriñ bi li mu wax ne ñu def ñaan ñaanu Seydil Hadji nañ ko jàngandoo bu ko defee dugal ci suñu yéene yàlla nañ ko yàlla defal big yi dékk leen ci lépp rek muy benn ñaan dégg ngeen li mu wax mu nga jëm soowu jant te war naa del ñëw ndar bokk yàlla maye ñu tàllal amin ñaan gi mooy fatiha salaatul fatih ayatul kursi ixlaas falaqeeg naa salaatul fatih waaw ñuy examen ñëpp ñu dugal ko ci rek الناس من الجنة والناس اللهم بجاه الفاتح لما أغلق افتح لنا من كل باب خير فتحته على محمد رسول الله وبجاه الخاتم لما سبق اختم لنا بخاتمة المناجين الراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وبجاه الناصر الحق بالحق انصرنا على جميع الأعداء نصر الذي قيل لهم أتتخذنا هزوا وقال أعوذ بالله وبجاه الهادي إلى صراطك المستقيم اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم أنت إله من في السماوات وإله من في الأرض لا إله فيهما غيرك انصرنا على أعدائنا واقضي حوائجنا إنك السميع الدعاء يا رب العالمين إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما فإني أجدد العهد أجرت بيننا وبين شيخنا متوسلين به وبالوسائل الأخيار متحصنين بها أهلنا وجميع ما أعطانا الله بخاتم الله العلي القدير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 jël si leen ziar bi nga xamante ni moom la tànk di def muy ngor wakaam yoof ci ndigalal Serigne Abdoul Aziz si Al Amin nga xam ni mag ñi ñoo ko doon def moom Serigne Abdou ca mbaax ga ak ca bëgg njaboot ga mu dekkalaat ko ni ñëw leen ngeen jël lii mag ñi doon def ngeen def ko ñëw nañ ci jàmm egsi nañ ci jàmm fekk nañ fi suñuy sëriñ ci jàmm ñu toog ak ñun waxtaan ak ñun dénk ñu luñ ñuy dénk pare ñaanal ñu yàlla ba déwén a jàmm ñu taxaw ki nga xamante ni nag moom la Serigne Abdoul Aziz wóolu jël liggéey bi dénk ko ko yëkkati lépp teg ci loxoom ni leen dellu leen ca maam Ousmane mu coordonné ko ngeen waxtaan ak moom tey prési def nañ ziar bi ci jàmm ñëw ci jàmm ba ñuy sottal ci jàmm lan ngay wax mbokki jullit yi ñu àndaloon ñëw ziar si. Euh, salaamaaleykum vraiment li ñuy wax moom kàddu sant rek sant yàlla ak kàddu ngërëm sant yàlla bi mu ñu dimbalee ba ndenkaani lii yàlla may ñu tawféex ba ñu defaat ko. di gërëm nag ñi si jàpp ñëpp wax dëgg yàlla di gërëm ñi si jàpp ñëpp boo limee rek fàtte moo xam kilifa diine la moo xam kilifa aadala moo xam kilifa administration bi la imaam yi dëkk ba euh, euh, fere yi gis nga délégation bi ñu def borom dombu tànk yi maire bi Abdoulaye Diouf Sarr mais li gën a sedd suñu xol vraiment mooy délégation bi jóge kër Baye Ablaye Thiaw yal na yàlla defal ko tawféex ñi mu am daal gis nañ leen ñu ànd ak ñun fii si muy lu sori su maa ngi naan sëñ Moustapha ma ne ko koo fi gis de sunu mbokk deret la koo fi gis rek mën naa tudd li ma bokk ak yow mu ñëwaat délégation sunu njabootu maam Serigne Touba ñoom góor yàlla dimbali ñoom ñëpp ñu suñuy wëlëre ñoo bokk yoof nawante si jikko di wétalinte loolu ñu jogal seen bopp ñëw ni dañuy ànd ak yéen ànd ak ñun bii ànd bu rafet branché wu ñu ak ko xam yoon yi ni mu méttee loolu daal sori na su ñun lool te it yéene nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wa muy daal loo xam ni tey bu ñu doon wax lu ñu marqué ci ziyaara leen bi loolu la ndax yàgg nañ fi ziyaare se di ñëw muy rafet ah ñu di ko yéene nag waa diina ji yëpp mais dëgg-dëgg lu am rafet bu amul woon ñaaw waaye bii day ba mu amul woon sax ñaawul mais dëgg bi mu amee yokk na taar ci yëfi ñuy ñaan yàlla loolu yàlla na ko yàlla sàmm yàlla defal jàmm suñuy kilifa Baye Ablaye Thiaw yàlla defal ko tawféex defal ko sutura ah njabooti Cheikh Mountakha yàlla jàppale leen ba ñu jariñoo suñu leeru sëriñ li sëriñ Cheikh waxoon rek bu ñu sàggane ba xuloo tijaani xuloo murid yi murid yi noonu yonent bi rek ay kontaan ndax itam nag li mag ñi produir ci Sénégal ci diine produire ko si ay jàkka si ak ay modèle dëgg-dëgg ku ko génn si li fi islam am islam si boppam mooy màbb mooy màbb te it Serigne Cheikh da daan wax ne même kilifa diine bu la doyul te ñaar si njabootam doy la bu la yeboo kilifa ne doy la parce que yar na ñaari njaboot yu la doy te ñun nag bu dee suñu mbokk maam Serigne Touba am nañ si ay wóllëre di seq ñoom lu nekk bu dee ñi ñu jege nga xam ne suñuy mbokk deret lañ loolu waxuma ay wëllëre waaye dañ si am ay ay mbokk te yabuñu leen kon nag ki yilif koo yabul dëgg-dëgg am nga am nga am nga prétexte boo ko defee kilifa moo tax ñoom ñëpp suñuy kilifa la ñu di ko rafetlu vraiment di ñaan yàlla rek li ñu fiy sàkku si leer la rek ak yiw waaw te yàlla dajawul dajalewul leer ak yiw benn barab ku ne fa mu samp sa jëf fa nga koy ute waaye nag li Seydi Hadji Malick waxoon rek at turuhu kullaha ila rahman waaw ah, yooyu yëpp sàkku ngërëmal yàlla yowmal xiyaam te yàlla nañ ko yàlla defal bég nañ trop vraiment di baalu ak ñëpp di leen massawu toogaay bi yàgg na yoon wi metti na mais doo xool kenn sax ba yëg ni mu ngi jàmbat wala mu ngi ñaxtu loolu nag li ñu si yaakaar si yàlla nañ ko yàlla defal liggéey bi yàlla dafa dogal mu am bi ñu leen ko joxee ngeen jël ko dénk ndaw ñi heure bu ziar bi ñëwee ba ren di euh, sixième édition ndaw ñi ngeen ko jox ñu di koy doxal ma lay laaj ndax am ngeen ci satisfaction ci ñoom ni koy doxalee ak ni ñu koy liggéeyee. waaw dañuy wax ne nag moom bu wées bu wóoluwuloon béjjinam du ko wokkatu ko du ko xas du ko wokkatoo te liit ki ñu ko dénkoon toll na si ñun foo foo xam ni keneen kuñ ko jox ne la doxal ko toog rek ah. dañ la wóolu mais ñu ngi la siy gërëm yow particulièrement dëgg dëgg dëgg Euh, ni ngay def noonu la yiw yiw day yaatu te gis nañ ne fu xew rek yaa nga fa taxaw même bu dee si aada sax yaa nga taxaw nit nag day jël cëram rek ci defar lu baax moo tax ndaw ñooñu ñun dañ leen di ñaanal yàlla rek lii bu ñu ko xamee ay mag ñooñu si tette kon ñoom bu ñu nekkee suñuy jarbaat nekk suñuy doom suñu devoir mooy ñu tette leen si ah, ñun nag suñu méthode la mooy bàyyi leen bañ dem bu ñu defee erreur nga corriger ko ndànk ndax ku def erreur dootoo ko defati déwén moo tax ñoom itam yàlla yàlla taxawu leen ah taxawu ndaw yi xadar yëpp vraiment yàlla def tawféex dimbali daal ba nu jariñoo suñu leeru kilifa yi yàlla nañ ko yàlla defal. jërëjëf président li lañ leen jëlale woon Tivaouane ci ziar annuel bi tànk di def ngor wakaam yoof ren ji nekkoon sixième édition bi ñu àndandoo ko def ko ba mu sotti nii ci jàmm kon ci turu président maam Ousmane Samb ci turu coordination bi yëpp ñu gërëm waa yoof di gërëm waa wakaam di gërëm waa ngor yàlla bu nekk suñu mujj ziar. luñ ci jaamu yàlla yàlla nañ ko yàlla nangu luñ ci am ci rëcc rëcc yàlla nañ ko yàlla jéggal soppi ko mu di wiw ci barke yonent bi ci barke al amin mi nga xamante ni moo initié lii te wallahi bu ñu ñaanee ci barkeem yàlla duñu noo dinañu ko may ndax liggéeyal na ay maamam liggéeyal ay baayam boo fay fekki leen wàcc ñu ak liggéey bi yàlla bu mu yàqoo suñu loxo mbokk téléspectateurs yi li la leen jëlee woon Tiwaawan ci ziar bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu